maa ngi ziar bu baax a baax sama mbokk internet yi maa ngi ni ziar man la Karim Gueye Karim nitu dëgg euh, mbokku chaîne YouTube Abdou Karim Gueye maa ni ziar bu baax a baax sunu abonné yi di bëggee ñëpp euh, di leen wax ni comme ni nga ko waxee woon programme euh, télé ci poche feeñal yi ñu nëbb pro door na quoi ñu ngi ko dooree fii ci Casamance tey maa ngi Casamance ci benn village boo xam ni fa lañ jëm ni ci yoon bi lañ nekk bon bi nga xam moo ñu gilee mi ngi tudd Tendeng

toilette toilette amul toilette toilette donc yooyu yëpp dafa doy waar dafa doy waar ndox bu ñu naan eau potable amuñu ko am na si ñoo xam ne ndoxu taw bi la ñuy naan loolu yëpp incha allah dinaa leen ko wan dinaa ci gën a ñëw gën leen ko leeral dañu jaar ci chez Tendeng Tendeng euh,

Ok, merci. Ici, c'est chez vous, hein ouais ouais ici, chez moi. Ouais. Donc, dis moi une moi Voilà. Dis-moi, euh, oh. c'est l'équi. <laughs> Ah, c'est qui ah, c'est l'équi, voilà. C'est qui d'accord, ça marche. Si vous avez de l'électricité ici Non. qui a le courant Non, voilà. Donc, bi fan lay jógee fii. waaw gis nga fay comment eh, est fi ñu romb noonu waaw waaw fi ñu romb la jox ndox bi jógee. mais day de manière irrégulière quoi. c'est le bu ñëw. ndox bi ndoxu lan la. bon xal ah, je.

faut goûter voir. tey boo amee ay malade fii na ngeen def il faut ngeen dem ba Ziguinchor. Ziguinchor Ziguinchor on a un district ici quoi sanitaire. Mhm. On avait une ambulance. Et l'ambulance, est... comment quoi, est tombée en panne. on a une ambulance ici Oui, oui. Mais tu as toute l'ambulance Amatou l'ambulance. Depuis quand l'ambulance est panne Bon, ambulance, ça fait maintenant presque 5 à 6 mois. Hein. Ah, c'est vrai, c'est mm -hmm. Oui, des fois culbuté. Ambulance Oui. Quand le culbuté, c'est une Oui, c'est La grand-grand, quoi Oui, voilà. Tu vois, enfin, ça demande moins. On a demandé aux villageois de passer pour euh, sa réparation. Les gens ont donné, ils ont dit que c'est encore insuffisant. Mais comment vous faites quand les femmes sont, sont en état ah, Madame Toleti, tu aussi Non, mais film, mais ah, comment encore euh, des... Comment, on les appelle encore Des assistantes Oui, oui. Nous avons l'État. Nous avons l'État. Oui, oui faut, faut la nuit accoucher. courant bi fan la yem exactement. non courant yi amoo mais fan la yem fan la yem bref que foofu bi goudron bi yem. voilà foofu la yem. mais faut foofu ak fii nii. voilà C'est quoi C'est compliqué pour courant bi agsi fii wala c' est quoi est ce que vous avez essayé de xool naka ngeen dem courant bi bon ben les politiciens s'ils sont pris mais en vain. mujjul fenn mujjul fenn mujjul fenn même ça y avait il y avait euh, comment encore une société qui voulait améliorer la qualité de l'eau mhm. ñoom tamit ils sont ils sont venus faire le, le terrain après bon kenn gisatul dara kenn gisatul dara. c'est pas pour ñëw nañu xool après daal mu jël voilà mu jël fekk donc comme ñoo ko gisandoo gars yi tey moom dama ñëw ak yéen Casamance ci quelques villages su ma leen wan xam ni. ngeen xool jafe-jafe ñi lan lañ mën a jàppale villageois yi villageois yi nga xam ne ñu nekk fii ci wàllu fii ambulance jarul dara bu ñu góorgóorloo rek amaana mën nañu ambulance boo xam ne di jógee Bandial fii a am parce que fii c'est 20 kilomètres 30 kilomètres de Ziguinchor donc soriwul donc dañuy dem xam naa ak Tendeng ñu dem Bandial ah, ñu xool euh, ñu xool jafe-jafe yi Bandial yi dund parce que fii am na ndox mais moom il paraît que amul sax ndox bëgg naa xam nag ñaata kilomètre moo sori fii ak Kuraan bëgg naa xam. ah ok ok d' daal boo ñu dimbalee ci courant. ngeen dimbali ñu ci ndox ndox daal moo tax ñu ne nit nii lañu dëkkee ci lëndëm suñu doom yi dañuy xuus guddi gi ñoom daal ragalatuñu dara parce que dañ koo tàmm loo dëkk boo dëkk boo miinee dox guddi xam nga xale boo leen nee dafa lëndëm toogal mu ne la déedéet dama il faut ma fooy kenn mën leen tere fooy ñi jot am ay solaire ñu am ay nu mu tooti ay télévision da ngay gis xale bu fi jógee ba beneen quartier dem di seetaan lu ko jar te mënoon naa ko am waaye ñàkk

chaque mois waaye chaque mois dañuy feeku courant panneau solaire ñu lay fay courant bi war ki yonent man du ma wàcc yonent ba pour fen bëri dañu loolu moo tax ñu bëri dañu delloo seen panneau solaire dañ ko dugal ci biir néeg ñu ne la soo fayul dañ koy nangu boo maaree nga fippu amoon la jox say njaboot ñu lekk danga leen koy delloo ah chaque mois nga fay mil wala nga fay 5000 francs ndox chaque mois nga fay suñu robinet yi chaque mois da ngay fay te si par deux mois deux mois la lu ko jar ngeen bàyyi ñu ci lëndam rek xale yi bu ñuy jàng dañuy dem ba dañuy si saret dañuy dem suñu xale yi suñu fiy jàngi gis nga fii suñu mbedd mii mbaam du fi daagu ginaar du fi daagu kanaara du fi daagu lu ñu reyal fi béy kenn xamul lu mu toll lu reyal fi béy kenn xamul lu mu toll te boo waxee borom mu ne soo bëggee ma fay do fayeeku loo loo xamante ne doomu aadama ci mala waaye nag munoon na taxaw jamasanteeg yow waaye duñ ko def suñu gorob fi la mbam mbaam bu diis lu ko desee ay fan yu néew pour mu jur nii lañ ko ree ñu gàddu ko dem sànni lu ko jar te bu waxee ñu tontu la tontu bu ñagas te doo ñeme wax fii dëgg moo fi newul ñun dañoo sonn dañoo tay ñun benn président bu fi taxaw bañu ñu la lépp lañ bëgg ku liggéey lu baax rek ñu fal la ku liggéey lu baax ànduñoo ak yow mu jeex tàkk Macky Sall kenn bañu ko ñun ñëpp ko bëgg ku def lu baax rek ñu ànd ak yow ku def lu baax du ñu ànd ak yow dëgg la waaw fi ñu ne nii ñun dañoo sonn dañoo tay mm-hmm. su bidon ndox bi sax suñ ma ko yóotulee mhm. en Enampor ba fii 100 francs lay fay boo naree root ñi vingt bidon ñaata ngay fay ci lu ko jar lu xey ñi nan ndox robinet bi rek ñu japp ci. yàlla baax ku amul lay namp ma. jërëjëf fi mooy village am no village bi euh, Sidiki la tudd ñoom dégg ngeen maire bi ni wax jafé jafé yi nga xam ñu koy tudd panneau solaire panneau solaire nen dañ leen di fayeeku sax boko ko installé dañ leen fayeeku chaque mois ba mujj gi doo sax day ëpp sax da ngay fay courant motax après ñu dañ ko mu gàll c'est-à-dire gis ngeen li mu par rapport ak xale yi lëndëm bi ñu nekk ngi Casamance di wax ni village boo xam ñu ngi tudd ñu ngi jëm ci village bi fi na ndox foofu amul ndox amul courant muy Bandia ñu dem gars ñu ba pour wan Sénégalais yi Sénégal di dundee ci état boo mi nga 50 milliards ay 8 milliards par mois ay doom président ay doom président ay ay ay doom ministre ay passeport diplomatique ay waykat ñu leen di jox ay 100 millions ay 200 millions ay nit yor ay milliards di ko foowee am ay doomu Sénégal yu nekk Sénégal dëkk Sénégal ba paré te mënuñu am sax ndox bu ñu naan eau potable amuñu dañ ñëw ci loolu inshallah allah jaa ngi Ah, c'est les, les toilettes style quoi. Allez, ouais, c'est salaamaaleykum maa ngi maa ngi nuyu ñëpp encore dellu si waat si sama mbokk internet yi di wax sànq village boobu mooy Sidiki léegi ñu ngi dugg Bandial fi mooy Bandial euh, ñu ngi ñëw nag léegi fii nag lañ leen doon wax moom fii lañ ñëw pour wan leen euh, li nga xamante ni moom mooy euh, mooy jafe-jafe nga xamante ni ñoom ñu ngi koy dund ci village boo xamante ni daanaka trente et quelques kilomètres de Ziguinchor la village bii mooy Bandial village bu am ay jafe-jafe yoo xam ne tey moo tax ñu déplacé wu ci programme bi ñu leen waxoon ne mooy programme bi feeñal télé ci poste feeñal li ñuy nëbb nga xam ne télé du fi ñëw rajo du ko wax journal journaliste yi duñ ko wax politiciens yi duñ ko wax li ñi li li village yi di dund village yi gën a reculé ci Sénégal li ñuy dund dafa jot ñu wane ko Sénégal yi xam ko jug jëm jugal ci seen bopp jëm ko lijjanti donc ci loolu lañ nekk nii euh, ñi ngi nii di dugg ci village bi salaamaaleykum euh, ñu dem ñu dem ñu dem ndànk-ndànk ñu ànd ak grand tente mu leeral ñuy bare bare yoo xam ni village bi yittewoon na ko euh, ñu jublu si loolu. ok alors comme ni ma leen ko waxee woon ah di di wax ni si programme feeñal li feeñal li nëbu Euh, télé ci poste bi tay ñu ngi ñëw Bandial comme ni ma ko waxoon ñu ngi ñuy gis euh, chef de village euh bu Bandial dama koy baye mu présenté wu. yow euh, parle avec vous salam alaykoum wa waaleykum salaam ñu ngi lay ñu lay dégg. je te présente et tu tu parles avec les internautes. Olof, français quand tu loo bëgg rek. je suis le chef de village de Bandial. euh, de la commune de Namport et de l'arrondissement de Niassia. je suis là dans un village peuplé de environ 815 habitants. un euh, village euh, de pêcheurs dont l'activité, leur activité principale, c'est la pêche et la riziculture. Et là, nos difficultés majeures, c'est à partir, nous avons un problème de l'eau très récurrent. Parce que présentement, l'eau que nous utilisons quotidiennement, c'est l'eau de, pluie recueillie par des, des, bassins, des bassins. Euh, Maintenant que, bien qu'il y a l'eau du robinet, mais que, que nous n'utilisons pas très souvent, parce qu'il arrive des moments où il y a pénurie d'eau. Par exemple, aujourd'hui, présentement, depuis hier aujourd'hui, nous avons tardé à avoir l'eau du, robinet qui vient juste d'être là. Et c'est une eau très, très, très sommage qui ne favorisent facilite pas, favorise pas vraiment les besoins, les besoins des populations. Mais ils disent que vous avez un problème pour récupérer de l'eau. L'eau potable, vous n'avez pas de l'eau potable. Comment vous faites pour... Euh, il y, y, a une réservation qui... Réservation qui, qui... Oui, nous avons des, réservations qui sont là, que vous, ah. pourrez visiter par, moment. Mais alors, auparavant, avant ces, ces réalisations que nous avons eues à l'égard de Enda Santé, Auparavant, on, allait chercher de l'eau là-bas à Diramoït. Et c'est à quelques... Combien de kilomètres 8, euh, kilomètres environ de, de, Et on le fait par, par moyen de rame, hmm? par, pirogue. Par pirogue Oui. Ok. Maintenant, on peut aller voir les... Absolument. Alors, comme dégg moi ko un chef de village bi dégg nous expliqué par rapport au loolu bon je crois que nous on va aller visiter le village ñu xool voir jafe yi par rapport à l'eau, bi nga xam utiliser xool jafe-jafe yi nekk ci village yëpp ñu wan ñu ko xam nga après ñu xool su ko va faire ñu waxtaan si après ñu dellu si waat sama gars ay télé ci poos Oye, tampoco pago calle, en de, en de Francia. Ah, la acción se ha salido de relais espagnol la boobu il faut que ñu retiré l' eau quoi. gën ñu retiré ndox. waaw waaw directement ba boobu taayoo taayoo. ndox fii ndoxu lan moo fi nekk. ndox ndoxu taw bi. ndoxu taw bi ndoxu taw xanaa la. dañ koy utiliser di ko naan. moom la ñuy moom la ñuy utiliser naan quoi. mais bu utiliser pour dañ koy dañ koy filtrer quoi di ko naan. voilà dañ koy jabe jabiliser. waaw dañuy fekk saxar nii rek ñu ko jabiliser.

le village vous avez dit qu'il y a presque 800 et quelques habitants. maintenant comment vous faites pour que ça ça se passe comment avec les organisation là mhm. par exemple bidon couple jour Oui, pour semaine

est-ce que mën nañu xool lii. ñuy jàppale ndax taw bi nan la siy wàccee. kan kan moo leen defaral lii fii. Euh, lii moom ay ay espagnol. ça fait combien d'années ngeen di ngeen di utiliser ndox bi nii. yàgg naa de. quatre-vingt-deux. 82. 82. non yooyu c'est vrai c'est vrai bi moom c'est fermé baraba parce que ñi bi ñu koy def dañuy bañ poussière bi. waaw waaw nawet bi di fa kii bu nawet bi ñëwul waaw dañuy dañuy dem fële. ok bii c'est fermé dañuy dem fële. Um foragem, mano. mooy priori quoi. ok parce que pri forage mooy priori quoi. c'est-à-dire ndox am na loo xam ne moom c'est le minimum quoi ndokh vous vous rendez compte. Mm-hmm. ok c'est-à-dire yaa ngi filmé nii cest à vous vous rendez compte cest à Sénégal amna village yo xamanteni ni taw lañuy ñuy mais mais imaginez len lolu quoi est-ce que moment biñu nek fi di wax ay détails yu kenn xamul quoi. Non mais c'est grave. C'est pas possible avec un un au forage sur place parce que notre <coughs> sous-sol est en haut. Quand on vraiment.

donc donc ça sera donc ni là ndox bi ni lay wàcce après buñu rot ñu ñew ñu lañuy tek bi waaw système de recueillement d'eau donc ndox bi donc si lii ndoxu taw la quoi ndoxu taw la waaw mun na waaw Le fort, le fort est C'est le fort qui est en train de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de

panneau solaire ñu ko alimenter voilà en courant on aura tout le temps de l'eau maintenant maintenant par rapport à parce que j'ai vu qu'il y a des maisons yu am ay panneaux solaires ah par rapport à l'électricité c'est-à-dire gis il y a des maisons yu am ay panneaux solaires comme hein? ça se passe comment panneau solaire là, lan la dafa cher dafa jafe lu tax ñëpp amuñu ko ça se est-ce que ben panneau solaire comme ni mu nekkee si kër gi nii dina mën alimenter kër gi yëpp benn kër mais amna ay kër yo xamantene du du ko mën alimenter parce que lampe on nous demande dañu ñu laaj ñi limite te làmp yi yenn saa yi ñu ne la ay cinq fukki juróomi làmp nga ngay ngay mën a taal yenn yeneen yi du ñu mën a am te doonul système boo xamante ne yenn saa yi mën nga am sa mbokk mu la mën a naan teel télé bi am bi ndax nga mën a xam itam lu xew ci dëkk bi mhm. réew bi doo xam parce que doo ko mën a alimenter ci système boobu parce que amul kii onduleur doon gënal te nu mu nekkee nii du kër yëpp am te loolu baaxul ci dëkk fu mu ne nii sax yenn say dañuy defee ne chef bi moo tànn ñi mu bëgg <laughs> jox ñi bàyyi ñi te du loolu parce que mm-hmm. bawoon dañ ñu laajoon ñu waxoon ne dina am apport bu vingt mille francs moo tax ñu bëri binduñu waaye ñu bindu euh, non apport bu ko ci olof mu leer waaw apport bu vingt mille francs ci olof waaw apport bu ñeenti junni ñeenti junni waaw mooy ba bawoon euh, am nañuy jot a bindu mais ñeneen ñi bindu ñu parce que pour ñom ay amuñu xaalis légui boo ki bi projet projet bi diké ñi naan amul joxé vingt mille parce que ñi né rappel ñi ki info muy impôt yi dañu dafa am borom kat doole itam keneen ko xamanteni dafa joxé lolu yépp pour le village insulaire dekk yi dekk yi nga xamné dañuy dekk ci mangrove yi comme ñun ñi mhm. lolu mo doon moo tax ñooñu am faveur boobu léegi ñu lool ñeneen ñi gisé gisewuñu ko non ma ne leen ah bu mbir ñëwee bu ñuy jéem a bañ na ñëpp jublu si si si góor man sama ngëneel mooy nañ ñu ñépp am am nañu amul ba tey loolu gënalu ma ma bëggoon mooy na nañ ñu ñëpp am ok waaye fu mu ne nii am naa ay jigéen yi yëngu ci jën ñooñu lañu weer jën ak yooyu mën nañ si waaw xam nga dëkk boo dëkkee loo moom rek ci loolu nga mën a jëriñ waaw munoo xa mu ne nii mënuñu xalaat loo xamante ne waa kii àll yi ñoo ko mën a kii ñun fi tax suñu àll mooy lii mhm. géej ci géej la yëngu fu mu ne nii surtout ñun ñi nga dañuy ci ci chambre chambre froide ni ni ni pour bés bu nekk wax saa yoo soxla glace nga am ko fi fi fii surtout ci ci bërëb bi nga nekkee hmm. dina dund gën bala ngay jóg suba di yónnee pour ñu jëndal la glace yeneen xëy ngay toog fi ba ba maar doo doo jot sa glace wala même bu buy ñëw dana say ba mu dese la tuuti as tuuti bo demee doo mun def ay fan yi war te xam nga léegi géej bi demeewul comme ba woon mais napp bi pour mu gën boo amee sa glace nga nga dajale as tuuti ngir waaw waaw bu booy jaay dina am di nga am tuuti lu mun a seddal sa xol. mooy wàllu napp bi. allo euh, wàllu euh, mbay bi voilà mbay bi surtout parce que ngay xool le sel est en train de le sel est en train de grignoter sur euh, les rizières la waaw maanaam décortiqueuse mais waaw même partenaires yi nag ñuy jàppale si benn yi décortiqueuse mais pour ñoom si seen xalaat bu bees lañ lañ ñuy yéene woon waaye xam nga yëf yi rek dafa am ku ñu jox xaalis pour mu kooku kii lijjanti li ñu waaw waaye malheureusement bu magat la ñuy àndil mi ngeen mi ngi ne ñu ngi ñu ngi ci coono boobu ngeen am foofu noonu waaw mais fii yéen ngeen di bay ëpp ceeb la ceeb ceeb ceeb ceeb kese ceeb bay bi

am nañu benn poste kii de santé cadre de santé. cadre de santé bi. waaw kan moo fi def kan moo fi def. boobu ay kii. encore les ay ay collègues ñoo ñu ko defal kii label des partenaires quoi. encore toujours c'est les partenaires. waaw man ce qui m'impressionne moi à chaque fois vous parlez de partenaires vous m'avez jamais dit ce qu'a fait l'État. waaye Mayed c'est couvert par euh, le poste de santé de Séléki. Séléki waaw Séléki ok ah, mais donc c'est les catholiques qui l'ont qui l'ont assisté waaw kër sër daal ko encadré parce que ñi fa nek personnel bu fa nek c'est l'état qui état bi mo leen di di formé mhm. waaw mettre dans de bonnes conditions de travail alhamdoulillah maintenant ñu jéem xol machine bi ñu walu bay bi je pense qu'on a parlé de machine bi ñata la def fi yàgg na fi ça coûte combien environ. Parce que vous avez besoin de ça pour travailler. Il faut, il faut, nous, il faut nous donner tous les données. Nous comme ça, nous nous présenter Parce que vous ah, le travail, ça les nous, bien

boobu laa taxaw ah Paa laa wax. am nañu aussi ay déggoo temps yi passé lañ ko dépanné. ku si nekkoon dafa dem ba sonn ba fi moom la problème de santé nekkoon na na bàyyi lii. parce que pour temps bi. coono la man man yéen a man waaw da ngay man yéen dafa mën a yéen ba solo waaye xam nga mënatul mënatul mënatul mu ne moom commune bi sa santé lañ ko ne mu bàyyi lii. parce que day xam naa ban activité lay def. mu ne ko mu ne leen moom lii lii lay liggéey.

installé ba pare waaw mu yem foofu bu do am ku ñëw pour defar motax yu bëri. mais ben panneau solaire bi ni ah, pour une maison. pour une maison waaw. donc kon alimentation panneau solaire bi ci ki rek la yem. lumière lampe lumière kese comme ki ni amatul lolu gis am na benn panneau kii bu ndaw système bu ndaw bu ki fale pour juste euh, éclairer quelques chambres parce que c'est trois lampes seulement. et le reste des chambres. tàkkatul tàkkatul waaw lu tax tàkkatul même la même année bu ñu ko dañ ko def dañ ko def jàmm rek dañ ko parax paraxee daal liggéey bi ay instant rek mu fay waaw bu dama ci kenn pour mu mën a ñëw xoolal leen ko wala quelque chose comme woo naa woo naa fële woo naa naa fële ba tey ñu ne dinañ ñëw dinañu ñëw ba tey bari moo nekk nekk nii foofu ba ñu bëgg nangu kii liggéey bi mu ñëw. parax paraxee ko dem yoon waaw loolu mooy sénégalais mooy africain. <laughs> loolu mooy sénégalais c'est ça l'africain. il y a combien de maisons dans ce village? Euh, maisons. par, exemple, les gens qui, voulaient vous aider, par exemple, mhm. comment ils vont faire oh, l'argent dans le C'est transparent, il n'y aura aucun problème. Vous, vous vous allez une vidéo, puis vous allez voir les qui vous aider Bonjour. Madame, comment vas-tu qu'il y un linge. Je, je, je viens t'aider. Je ah, t'aider. argent pour les réalisations Sabina Bassène fii laa dëkk village Bandial fii waaw euh, ñun am nañu suñu association mu ngi tudd GIE Bulex Bulex waaw groupement jigéen yi fii ci village Bandial hmm. man maay ah Bulex ça signifie quoi néew doole nit mooy néew doole euh, ñun suñu liggéey association bi euh, kii cuub traditionnel la cuub si suñu GIE ak batik waaye batik bi mujjewul parce que sër yi bi moom la ñuy gën a liggéey sër rabal mooy sëru bànjaal mooy yu ñuul yi mhm. michel nguur pa guy yamen igi teenil moom la ñuy liggéey moom la ñuy gën a liggéey mhm. batik bi jéemoon nañ ko enda ñooñu jàppale ak benn kii benn ONG ay kii la ñu daal ay espagnol. espagnol ok waaw ñooñu doon jàppale. mais comme contrat la contrat bi dem na ba jeex. Mm-hmm. lay continuer ak ñun. ok léegi yan jafe-jafe ngeen doon am si si si liggéey boobu euh, si liggéey bi batik bi. Mm-hmm. Euh, dafa kii daal nan laa koy waxee mokkaluñu woon daal. ndax waaw. woon ndax formation yi bëriwul woon dafa desoon moo tax mujjewuñu ko continuer léegi. traditionnel bi moom boobu suñu cosaan la mën nañ ko ñu ngi koy def ba tey. rabal bi rabal bi waaw mooy sër yi ah, moom la ñuy gën a liggéey waaw yii gën a liggéey ci suñu GIE euh, suñu bërëb suñu doon liggéey mooy bâtiment bi ngeen di gis nii ah, waaw euh, benn ngelaw bu fort moo ñëwoon ñu dindi toiture bi léegi ci loolu ñu amoon benn

ñàkk mm-hmm. nañ ko mm-hmm. amuñu ndox loolu yëpp liggéey métti la mm-hmm. gal. ay gaal comme yoxos bi ngeen di gis nii dañuy bëgg di uti yoxos problème gaal amuñu fi ay gaal yu doy ndax ñun fi géej bi luñ gën a yaakaar waaw mooy pêche bi mooy pêche bi waaw amuñu gaal gis naa ngay liggéey si xorom bi comment vous faites noo def ba teg xorom bi nii xorom bi nii dafa déedéet dëre ah, ba jeex waaw am na benn couche bu sale buñ dee lelli nii ci suuf. Mhm. day benn couche bu sale. bu nekk ci suufu dex bi waaw. Ah, comme nii maa ngi ko dajale fële sax dam ko indiwul rek. soriwul moom mu nekk nii ah. lii ndox bi la. léegi ndox bi mooy évaporé après mu nekk sel. couche bi moom laay jël. Mhm. def ko fii pare woon naa ko sax dem indi pour ma filtrer ngeen kii par ngeen yegg si couche bi laay jël def fii su ma ko defee ba pare teg sama paan sotti ndox léegi couche boobu day seeyi waale en même temps xam nga day seeyi waale ndox bi di saf xorom ndoxu géej bi laay jël waaw moom laa moom laa indi ni sa ndox bi léegi dama naroon dem indi couche bi rek sotti daal di sotti ndox bi ma filtré ma ko filtré ba mu set mhm. boobu laay jël sotti ci bool bi sotti ci bool waaw muy baax bu baaxee de fur et nu muy wàccee noonu laay yokkee ndox ainsi de suite ba xorom bi bëre ba bool bi fees ma daal di yekk def ci panier bi bu siitee ma sorti fele loolu mo may indi xorom bi xorom bi nak mo nekk ni c'est fini produit fini la. waaw léegi fini bu siitee donc on dal yow fi sama yow daal sa usine bi fi la nek quoi usine bi dex bi la. sama usine fi lepp fi nga koy quoi. waaw fii laa koy defee. macha allah macha allah. kon moo may sel bi nii quoi. après comment vous faites pour jaay da koy sel bi. déedéet ma enfin man du ma pour consommation bi rek Fini, nii da damay may sama mbokk yi nekk Ziguinchor ñi nek un peu partout ñi nga xamne amuñu xorom man moom musuma jaay nak mais amna ñu koy jaay dam koy may wa dañ am na ñu koy jaay deug la mais mën na xam euh, sank ya nga waxu gal si si geej bi pour pour nap pour jël ay ki ñan ñokoy liggéey yoxos bi góor ñi la wala jigen ñi jigen ñi ñokoy liggéey yoxos bi mom jigen ñi ñokoy liggéey dañ koy uti ñew lak sank sa da nga fekk maire yi pare fi lañu négon di lak di ngeen doon gis ñu koy lak lakk dindi liggéey bu metti la itam ndax loxo yëpp a yàqu gisoo sama loxo yi yëpp a yàqu ay rodd rodd yaram bi yëpp dafa métti nag. ok liggéey bi du laaj ay gants ak yooyu. wala ak gants laaj na ay gants comme du ñuy am ay gants ay tubéy jiin yooyu lañuy dagg. <laughs> jéem ko waaw forme gant ñu dugal takk <laughs> ah nga mun a kii waaw amuñu ay gants. lii borom da kay jaay nak bi mom mako ko mère yee mère bee moo ko moom Émilie man sànq saa yi li ma lakk gën bi su ma li gàmmi ne la so ko gel ngeen koy jaay ha ah? bi day jar bu ba ah yow kay mom day jar du taxaw ko xos bi ha ah? hmm fi day jar bu ba ko no ni baax. lii démb laaka la. kala bi ko ba bii moom day jar. bu baax ah bu yaa jaw waaw on prend les pirogues man di jóg fii Subaaba ñun daa wax ket. mais li may tëj dama bëgg xam quoi xam nga ñun ñun dañuy faciliter rek parce que dafa bëri ñoo xam ay Sénégalais ci bi bëgg dimbali Sénégal parce que xam nañu état programme bi loolu amul xaar état léegi ñun dañu bëgg village bu dem par exemple comme ni ñu ñëwee si yow ni jaatam rek

ñu mm, ñu ñëwoon dimbali. xanaa ñu jéem kii rek jokkoo. waaw ah, mais yéen amu leen seen association bi amul compte bancaire. am nañu. Mhm. am nañu compte bancaire. numéro compte bancaire bi nan lay def ba am ko. ah loolu kay moo xanaa dañuy toog bureau bi rek. waxtaan ba ñu jubóo. Mhm. wax ak assemblée ba ñu jubóo. Mhm. ñu jox leen numéro compte bi. ok que am naa samay morom yi ñu bokkal bureau. mën nga waxaat tur bi.

Et des fois, quand il y a besoin, il faut y aller par voie fluviale. Hmm, et Il faut au moins, au moins presque de rappeler, oui. Hmm. Euh, donc, il serait nécessaire pour nous d'avoir une pirogue motorisée. Pour, faciliter ces déplacements-là. Hmm. Une, pirogue motorisée. Amad, Amad, une pirogue motorisée. Amad, kai kai kai bolibor Banjal et Lobalir Banjal et tout ça sont des villages voisins auxquels pour nous ici pour y aller des besoins d'urgence euh, prendre la voie fluviale c'est plus rapide rapide ok léegi boo am boo ñu amoon wala amoon benn période boo xam ni ok côté baabu ma. ok salaamaaleykum waa tey moom 30 minutes ensemble bi télé ci poste 30 minutes ensemble tey fii la leen village boo xam ni yéen ñëpp gis nga gis ñoo ko gisandoo presque 33 kilomètres wala 40 kilomètres de Ziguinchor village bi ndoxu taw la ñuy naan di ngeen ko gis war naa leen ko sànq war nañ leen ko sànq ak chef de village bi jigéen ñi nu ñuy def ba lijjanti xorom bi naka la ñu toilettes yi gis ngeen ko toilettes yi nga xam ne quatre toilettes moom 800 et quelques habitants ñoo nekk ci village bi 52 maisons amuñu courant ndox taw bi la ñuy naan gis ngeen ko

dañu am yu bari bari après ñu xol kam mo ne mëna dimbali ci ñu am ndox ci forage ñom seen ndoxu bop kam baña xaar état du Sénégal parce que état du Sénégal lijeenti lijjantiwul lool Sénégal fi la tollu ci ay nit di fébar di xaar di nekk ci ay jafe-jafe yo xam kenn mënu ko expliquer légui nak ñun programme bi nga xam moy 30 minutes ensemble ñun ñoko lijeenti lijjanti woon pour ñoo wan leen ngeen xol Bandial moy village village baa ngi gis ngeen ko ak chef de village bi et tout légui lepp lu ci laaj inshallah rabbi dañ leen ko officiel ngeen gis ko muy compte bi ngeen wara def xaliss bi et tout lepp lu ngeen ci wara def ngeen jàppale nga xam directement ci ñom lay dem nous nous nous encore dans un village bouin dem damat entre dans une semaine ou le un mois tu viens 30 000 ensemble à Guyane tu vois le Sénégal n'importe le Sénégal d'Imel tirer au mois comme être président bi là il caisse noire plus de 8 milliards par mois voilà 50 milliards yaham président assemblée nationale est 50 milliards 8 milliards yaham dans les damgo les députés yaham président de nouveau parler dire un jour connaît un million dire un comment un milliard quel petit village Mambaya nous coûte 27 milliards la sache des te coûte nous coûte 9 milliards il y a beaucoup de un milliard quel petit village village bi coûte 1 milliard lip là am lip lépp ñom ñi ngi fooy milliards et des milliards et des milliards donc alors ñun ñooy juk ñun les sénégalais ñun les patriotes on va tout faire pour yéen ngeen jokkoo ak chef de village et sa femme bi nga xam mo moo gère association bi ak ñom seen compte ñi jox ni xam nañ ko afficher ngeen góorgóorlu dimbali village bi ni ñom ñu mëna a continuer seen liggéey Karim Gueye won ci seen émission télé ci euh, télé ci poche 30 minutes ensemble wa salatu wa salam ala rasoulullah